saabuuni wala ndox moo xam ne saabu da cee dugg wala wasaxi wala ndox moo xam ne salte ca nekk wa naxwihi ak yi nga xam ne maanaam ak li mel noonu wala baas nee na amul nag benn gravité bi turaabi ci ndox moo xam ne suufa ci dugg wal xama i wala ndox moo xam ne dafa jaxasoo ak ban wa sabxati wala ndox moo xam dafa jaxasoo ak potox maanaam léegi ak potoxo wala xas ak képp wa naxwihi ak lay maanaam ak yi demee noonu ndax képp su fekkee da nga jël ndox nga jël képp gi def ko ci kon defe na ndox mi lam doon saf soppeeku na kon mooma ndox mënutul jàpp waaye nag su fekkee léegi ndox mi dafa maanaam léegi ndox mi dafa taaj ci foo xam ne képp ci boppam moo fa sax kon mooma ndox ci boppam place ba foofu la képp nekk mooma ndox ci boppam baax na kon loolu mooy xeeti ndox mi nga xam ne mën nga ciy jàpp mën nga ciy sangu mu ñëw ci faslun ci beneen buntu mu nii ida taayanat najasatu xusila mahalluha fa in iltabasat xusila sawbu kulluhu bu fekkee yére bi ci boppam dafa am sobe mu ne ida taayanat bu fekkee ràññeeku na bu fekkee leer na an najasatu sobe si nga xam place bi mu nekk nee na xusila dañuy raxas rek mahalluha place bi nga xam ne foofu la sobe si nekk moo xam sér la wala moo xam tubay la gis nga ne place bi ci boppam sobe si fii la toq nee na place bi nga xam ne foofu la sobe si nekk place boobu ngay jël rek dal di ko raxas waaye du jër ngay fóot yére yi yépp fa inil tabasat bu fekkee wóor na la ne yére bi sobee ngi ci waaye xamuloo ci ban place la nekk ghusila sawbu kulluhu dañuy fóot yére yi yépp ndax loolu moo gën a wóor wa man shakka nee na ku am sikki sakka fii asaabati najasatin ci laalug sobe nga xam da nga am sikki sakka ne waaw yére bi place bi sobe laal na ko wala sobe laalut ko boo ci xasee am dut nee na nee na nabaxa da ngay jël ndox nga dali nga dali ko wis ci place bi nga xam ne foofu nga yaakaaru ne foofu la sobe si nekk nee na wa in asaabahu bu fekkee daf ko laal shay'un dara dafa am loola laal te loolu laal la shakka fi najasatihi yaa ngi am sikki sàkk ndax li ma laal am na sobe wala amul sobe nee na fala nadha alayhi kooku dootu jar nga di ko dootu jar nga di ko wis wa man tatakkara najasata képp ko fàttale ko ne suma yére bi am na sobe wa huwa fi salaati te fekk mu ngi ci julli gi qataa dafay dagg julli ga nga dem ba taxaw di julli walbati ko fàtte ne man ka tubay jii ma sol wala man ka sër bii ma woddoo dafa am sobe nee na qataa da ngay dal di dagg julli gi illa an yaxaafa xurujal waxtu lu dul nag da ngaa ragal ne boo daggee julli gi dem di changer ji beneen yére waxtu wi dina paas kon nee na su la leeree ne boo daggee julli gi dem soli beneen beneen tubay wala nga dem jëli beneen sër balaa ngay ñëw waxtu wi paas na nee na continuel continuel nga dem julli ndax julli ci waxtu wa dañu ko sopp wa man salla biha ne ne képp ku julli ak sobe naasiyan te fàtte woon ko wa tadakkara baada salaami nga fàttale ko ku gannaaw boo sëlmalee aada da ngay bamtuwaat julli ga fil waxtu ci saasi masalan yaa ngi doon julli dem nga ba kabar nga fàttale ko ne yow mii kat sa yére bi ci boppam am na sobe nee na nga fàttaliku ko gannaaw boo waxee asalaamualeykum dem nga ba ne wax asalaamualeykum doo nga fàttaliku ne yëre bii nga soloon kat moom ci boppam dafa am sobe nee na aada fil waxti da ngay bamtuwaat julli ga ci saasi kon loolu point la faslun mu ñëwaat ci beneen bunt di ñu xamal faratay njàpp ñaata la mu ne faraidul wudu'i faratay njàppul sab'un juróom-ñaar la ba ca njëkk an niyatu moo yéene yéen nag ci xol lay nekk boo yéenee wa xaslul wajhi ak sëlmu te mooy raxas kar kanam wa xaslul yadayni ak raxas ñaari loxo loxo ndeyjoor ak loxo càmmoñ ilal mirfaqayni ba ci say ñaari cuwuncu wa masxu rasi ak masaa sa bopp bi wa xaslul rijlayni ak raxas ñaari tànk ilal kaabayni ba ci ñaari dojoor wa dalku ak bomb bi te mooy ragg gi nga koy ragg wal fawru ak gaaw mooy nga jàpp te jóge fa wa sununuhu sunnay njàpp nag xaslul yadayni mooy raxas ñaari loxo ilal kuwayni ba ci ñaari tikku njëre yi inda shuruuci ci jamono bi ngay commencé njàpp wax bismillahi raxas sa loxo ba ci say tikku njëre ñetti yoon wal madmadatu ak galax galax ndeku te mooy jël ndox dugal ci sa gémmiñ wal istinshaqu ak sorox ndeku te mooy jël ndox dugal ci sa bakkan wal istinthaaru ak fiiru te mooy génne ndox mi nekkoon ci bakkan bi wa raddu masxi rasi ak delloo masa bopp bi wa masxul udnayni ak masa ñaari nopp yi wa tajjidul ma ilahuma ak beesalaat ndox pour ñaari nopp yi ndax bi nga masa ee bopp bi mënoon nga ci raxasaale ñaari nopp yi waaye boo masa ee sa bopp ba pare ba delloo masa u bopp bi da ngay beesalaat ndox mi nag ndox moomu da nga koy beesalaat ba pare doo koy masa ee sa ñaari nopp am na ñoo xam ne dañuy masa bopp bi rek continuer ndox mi nga masa woon bopp bi nga masa ci nopp yi waaye loolu du sunna lii sunna daal mooy wa tajjidul ma ilahuma mooy nga beesalaat ndox mi mi nga xam ne moom ngay masaaye say nopp wa tartibu ak toftale ko toftale soo bàyyeekoo ci kanam nga jëm ci loxo bàyyeekoo ci loxo galax ndeku sorox ndeku yooyu nga xam ne ni nga koy toppa toppalante noonu toppalante bi ci boppam sunna la moo tax mu ne wa tartibu baynal faraid ak toppale bi ngay toppale diggante ñaari farate yi wa man nasiya képp ku fàtte fardan benn farata min aadaihi ca ay cëram nga doon jàpp fàtte ci faratay njàpp yi nga fàtte ci benn farata ci say cër fa in tazakkarahu nee na bu fekkee fàttaleku na ko bil qurbi ci lu jege faalahu daf koy def wa ma baadahu ak la nga xam ne moo nekkoon ca gannaawam masalan yaa ngi raxas fàttaleku nga ne yow ci sa bopp sëlmawuloo waaye bi nga koy fàttaliku da ngay ñëw bay raxas tànk yi nga doog koy fàttaliku su fekkee sa tànk bi nga raxas ci boppam wowagul wowagul mu leer la ne yow mii ci sa bopp raxasoo woon sa kar kanam nee na da ngay dem nga sëlmuwaat commencé nag ci sëlmu ba ba ba ngay desewaat ci tànk yi lépp nga bamtuwaat ko moo tax mu ne fa in tazakkarahu bil qurbi su fekkee daf ko fàttaliku ci lu jege faalahu daf koy def wa ma baadahu ak la nekk ci gannaawam nga bamtuwaat ko yëpp wa in taala bu fekkee distance bi nga ko fàttale koo ak bi nga paree njàppale nag dafa yàgg nee na faalahu waxdahu da nga koy def moom kese da nga koy dal di raxas moom kese waaye dootu jar ngay raxasaat la nga xam ne moo nekkoon ca gannaawam ndax itam ndox mi wow na waaye nag soo paree nee na wa aada da ngay bamtuwaat nag maa li nga xam ne salla moom la julli woon qablahu la ko jiitu su ko defee nga xool la nga xam ne moom nga julli woon julli ya weesu woon soo paree da nga koy bamtuwaat da ngay tooyal diggante bi farata la woon nga raxasaat ko ba pare waaye julli yi nga xam ne moom nga julli woon li jiitu ngay raxasaat farata bi julli yooyu da nga koy dellu bamtuwaat nee na wa in taraka sunnatan su fekkee dafa bàyyi sunna nag ci sunnay julli yi faalaha daf koy def wala yuidu salaata waaye dootu jar muy bamtuwaat julli yi wa man nasiya nee na képp ko fàtte lumaatan benn turu benn tomb nii nga xam ne da nga raxas say loxo wala nga raxas say tànk dal di gis benn tomb mu mel ni cent franc nii nga xam ne raxasuloo ko nee na loolu bu fekkee da nga koo fàttaleku xasalaha waxdaha da nga koy raxas moom kese waaye nag bind yëttin da ngay dal di fas yéene dal di ko raxas moom kese waaye dootu jar na ngay dem di jàppiwaat nag léegi di ko di ko di ko raxasaale waaye daal fekk nga lu toll ne benn turu bu mel ni cent franc bu ron ci sa cër yi raxasuloo ko woon nee na da ngay fas yéene ba pare jël ndox dal di ko raxas wa insalla bu fekkee dafa julli woon qabla dalika li jiitu muy raxas maanaam point boobu aada dafay bamtuwaat julli ga wa man tazakkara képp ku fàttaliku al madmadata sorox ndeku wal istinshaaqa ak sorox ndeku maanaam gàllax ndeku ak sorox ndeku bu fekkee da nga koo fàttaliku baada an sharaa fil wajhi gannaaw boo commencé raxas kar kanam fala yarjiu ilayhima dootoo delsiwaat dootoo bàyyi kanam gi di raxasaat maanaam di gàllax ndekuwaat wala ngay sorox ndekuwaat dootu ko jar da ngay continuer dootoo ci delsi xatta yutimma wuduahu feek yeggaliwul njàppal ndax sunna la yaa ngi yaay maanaam sunna nga bàyyi commencé farata boo fàttale koo ne lii kat sunna la bàyyi naa ko te nga nekkoon ci farata gi sunna warul tax nga bàyyi farata da ngay continuer farata yi jëf ko ba pare wëlbatiku doog a bamtuwaat li nga xam ne moo nekkoon sunna yi moo tax mu ne falaa yarjiu ilayhima dootoo delsiwaat di galaxnde ko wala ngay soroxnde ko xata yu timma feeg yeggaliwul wudoo aho njàppale da ngay jàpp ba set doog a galaxnde ko waat soroxnde ko waat wa fadailuhu li nga xam ne moo nekk ngëneelu jàpp ndax njàpp dafa am ay farata am ay sunna am ngëneel yoo xam ne soo ko defee ngëneel la ngëneel yi bi ciy juutu ak tasmiyatu mooy wax bismillahi rahmaani rahim loolu ngëneel la day tax mu gën a baax rek wastiwaaku ak soccu yonent bi doon na wax ne su ma bañuloon a sonal sama waxeet dinaa leen wax ne leen bala ngeen di julli na ngeen jàpp kon soccu maanaam bala ngeen di julli na ngeen soccu kon jël sa soccu soccu ba pare galax ne ko ba mu set nga ñëw jàpp loolu daal vraiment ngëneel la ci ngëneelu njàpp yi wa zaidu ala tarbatil ula fil waj ak dolli bi ngay dolli dóor bi nga dóoroon sa kar kanam maanaam ndox mi jël jël maanaam jël nga ndox dal di sëlmu nga jëlaat ndox sëlmu dool kon dolli bi ngay dolli ci laal bi nga laaloon sa kar kanam ci sëlmu gi nee na dolli bi nga ciy dolli ndox loolu itam ngëneel la wal yatay ni ak ñaari loxo yi nga jël ndox raxas jëlaat ndox raxas jëlaat ndox raxas kon loolu yépp ngëneel la wal bidaayatu bi muqaddami rasi ak sooy commencé di sëlmu nga commencé fi nga xam ne fi la sa karaw gi saxee ci sa commencement wu bopp bi karaw gi maanaam fi karaw gi saxee ci jëbi booy raxas nga commencé foofu wa tartibu sunan ak ngay toftale sunna yi da ngay galax ndeku dogo sorox ndeku waaye jaaduwul nga sorox ndeku ba pare galax ndeku waat soo baa yaa ngi jaxasi sunna yi moo tax mu ne wa tartibu sunan yi da ngay war a toftale sunna yi njàpp yi ci biir njàpp yi loola ngëneel la wa qillatul maa i ak nga néewal ndox mi alal udwi ci cëru cër bi ngay raxas bu fekkee sa loxo bi ngay raxas nga def ci ndox mu yem parce que yenn yàqu ndox la te islam ci boppam dafa islam dafa islam dafa organisé jël benn sat lay ndox jàppee lépp loolu yàq la kon jël ndox mu tuuti ndox mu yem jàpp ci njàpp lu simple loolu ci boppam gëneel la moo tax mu ne wa taqdimul yumna ak njëkkee bi ngay njëkkee sa loxo ndeyjoor alal yusra di ci teg loxo càmmoñ bi loolu itam gëneel la wa yajibu dina war taxliilu asaabiil yadayni nga tooyal sa baaraami loxo diggante baaraam yi nga def ci ndox taxliil ko yëngal ko nii wa yustahabu dinañu ko sopp nag fii asaabii rijalayni ci baaraami tànk yi kon bu dee baaraami loxo yi tooyal bi nga koy tooyal lu war la waaye su fekkee baaraami tànk yi la moom tooyal bi nga koy tooyal dañu koo sopp mais warul wa yajibu dina war itam taxliilu lixyatil xafiifa bu fekkee sa sikkim bi sikkim bu woyof la nekkul sikkim yu rëy yooyu da nga koy tooyal ndax boo ko tooyalee tooyal bi nga koy tooyal dina yegg ci der bi dina di maanaam dina yegg ci der bi ci deru sikkim bi fil wudu i ci njàpp doonal kasifati waaye nag waxuñ sikkim boo xam ne sikkim bu tar la bu dee sikkim bu tar doo tujal nga di ko tooyal ndax tooyal bi nga koy tooyal du tax der bi ci boppam dal di tooy kon su fekkee sikkim bu yem la man ngay tooyal sikkim bi waaye bu fekkee sikkim yu tar yooyu la nee na kon dootu ko jar waaye nag wa yajibu dina war taxliiluha nga tooyal sikkim bu tar bi fil xusli ci sangu sangu booy sangu moom sikkim bu tarak sikkim bu woyof ak yépp il faut nga tooyal ko moo tax mu ne walaw kaanat kasifatan donte sikkim bi sax dafa nekk sikkim bu nga nu noonu kon su dee jàpp la sikkim bu bu fekkee rëyul man ngay tooyal sikkim bi waaye bu fekkee sikkim bu rëy la moom du jar nga di ko tooyal waaye su dee sangu farata la moo xam sikkim bu rëy la moo xam sikkim bu ndaw la il faut nga tooyal ko parce que itam ci wàllu sangu la kon loolu mooy li nga xam ne lu ñu soppoon la ci wàllu ci wàllu njàpp faslun lii ab bunt la di wax itam li nga xam ne mooy toj njàpp nawaaqidul wudu i li nga xam ne mooy yàq njàpp nee na ahdaasun ay toj toj la wa asbaabun ak ay sabab dafa am ay sabab ak ay toj toj fal ahdaasu li nga xam ne ay toj-toj la al bawlu ba ca njëkk mooy saw mooy tur ndox wala xaa'itu ak dem duus wal riixu ak génne ngelaw wal masiyu ak ndox moomu nga xam ne mën nay génne ci góor bokkul ak man niyu wal wasiyu ak ndox mi nga xam ne dinay génne ci góor bu fekkee mu ngi tur ndox wal asbaabu sabab yi li nga xam ne mooy sabab ne léegi lii bu la dalee rek sa njàpp yàqu na an nawmu saqil mooy nelaw yoo xam ne nelaw yu diis la nelaw yoo xam ne nit dugg na ci néeg wax wala nit dugg na ci néeg jël fi dara ba génn te yëguloo ko yooyu nelaw même bu fekkoon ne da ngay jàpp doog a tëdd su fekkee yeewoo nga sooy julli da ngay dem nga jàppaat parce que xamuloo yëguloo lan moo war a génn ci yow ci maanaam ci diggante boobu wala ixmaa wa ak xëm maanaam nit ku tàggoog sagoom wa sukuru ak mandi nga mandi moo xam da nga mandi mandi nag bari na façon nit mandi na ci sàngara nit mandi na ci gëmmentu nit mandi na ci lu ne nga dem daal ba mandi yëg ne da ngaa mandi su boobaa da nga war a jàpp wal junoonu ak ndof bu la ndof duggee itam da ngay jàpp wal xublatu ak foon jigéen foon jigéen nag akolaaj yeeg foon yeeg yooyu yëpp ci biir la bokk wa lamsul marati ak laal jigéen laal jigéen in qasada lassata bu fekkee ki ko laal daf ciy jublu ba neex aw wajadaha wala jubluwut ci ba neex waaye am na ko ci su boobaa dafa war a dem jàppaat wa massu dakari wala bu fekkee góor la mu téye ak ngóoram góor bu téyee ngóoram bi bàttanil kaf fi ci sa biir tënk téye ko nii nee na boo ko defee soo paree da nga war a dem jàpp aw bi bàttanil asaabii wala ci sa biiri baaraam nga téye sa ngóor ci sa tënku loxo wala nga téye sa ngóor ci sa biiri baaraam nee na loolu yépp lenn lu ci nekk soo paree da nga war a dem jàppaat wa man shakka képp ko am dut képp ko am sikki sakka fii xadasin ci toj-toj wajaba alayhi alwuduu kooku dina war ci moom mu dem jàppaat yaa ngi njàpp mais daal yaa ngi am sikki sakka waaw ndax man sama njàpp li toj na wala est ce que man sama njàpp tojul nee na su boobaa demal nga jàppi moo gën a wóor illa an yakuna mu was wisan lu dul nag mu nekk nit koo xam ne nit kuy jaxasoo la nit ku gaaw a jaxasoo nee na kooku fala shay alayhi kooku dara waru ko ndax dafa am nit ñoo xam dañuy gaaw a naax am nit ñoo xam ne maanaam seen nature mooy jaxasoo waa est-ce que def naa lii def naa lii loolu bu fekkee nature la ci yow nee na jarutu ko mais su fekkee nit nit nga koo xam ne kii nekkoo nit ku maanaam nekkuloo nit koo xam ne kii ku jaxasoo nga bis boo amee sikki sàkka ndax njàpp li ndax njàpp li mu ngeeg yow wala njàpp li nekkul ak yow nee na su boobaa bàyyil sikki sàkka bi nga dem defi li nga xam ne moo gën a wóor moo tax mu ne bu fekkee da nga am mas yu wala was yu te mooy ndox moomu nga xam ne dafa génnoon ci góor di niru man yu te doonu ko wala ndox moomu nga xam ne dafa génnoon ci góor te gannaaw boo tuuree ndox ba pare la ndox moomu di génn waaye jibu alayhi dina war ci nit ki xaslu zakari mu raxas ngóoram kullihi yépp sa ngóore gi yépp moom ngay raxas minal mas yi bu fekkee ndox moomu nga xam ne moo génn ci saw moo moo génn nee na wala yaxsilu waaye nag du jar muy raxas al unsa yay ni ñaari nen yi dootu jar mu di ko raxas na na maanaam na raxas ngóore gi rek waaye du jar muy raxas léegi loolu nga xam ne moo nekk ñaari nen yi wal mas yu mas yu wa moom al maa u mooy ndox mi nga xam ne alxaariju dafay génn inda shahwati ci bànneex inda shahwati suxra te mooy bànneex bu ndaw buñ ne mas yu mooy ndox moomu nga xam ne dafay génn ci góor ci bànneex bu ndaw bànneex bu ndaw nag mu ne bi tafakkurin moo xam ngay xalaat toog di xalaat jigéen ba dara génn aw nazarin wala nga toog di xool jigéen ba dara génn aw xëyrihi wala yi bokkul ak yooyu yooyu yépp su boobaa nee na li nga war a def mooy toujours da ngay dal di raxas li nga xam ne moo nekk zakara si yépp ngay raxas kon faslun beneen bunta ngi nii nee na laa yaxillu du dagan li xëyril mutawaddi ci koo xam ne kii jàppul ku jàppul jaaduwul ci moom salaatun julli boo jàppulee nee na warooy julli wala tawaafun bu dee ci kaaba gi warooy wër kaaba gi wala masfu nusxatil quran warooy laal itam mbindam alquran al azim alquran bu màgg bi waroo koy laal wala jildiha wala sax deru alquran waroo ko laal laa bi yeddihi waroo ko laal ci loxoom wala bi oodin waroo ko laal ak bant sax wa naxwihi wala yi niroog yooyu kon bu fekkee jàppuloo nee na warooy julli warooy tawaaf ca màkka warooy laal mbindum alquran waroo ko laalee sa loxo waroo ko laalee lii nga xam ne moo nekk ab bant ku jàppul nag lañ wax waaye léegi da ngay dem ba ñu naan la jigéen du lal kaamel ah ah jigéen ju jàppul comme góor gu jàppul waaye jigéen soo demee ba jàpp amul sobe amul dara war nay mën a yëkkati kaamel laal ko di ko jàng mais ku jàppul lañ wax mais waxuñ ne jigéen ci boppam du laal kaamel kon loolu il faut ñu leeral point boobu moo tax mu ni illa al juz'a minha al mutaallama fihi liñ la permettre nag pour nga jël ko ci mooy benn xaaj benn partie pour ki nga xam ne daf ciy jàng jàppuloo waaye yow da nga yow jànkata alquran ko ñu ne la bul laal kaamil mais jëlal benn xaaj ci kaamil bi jël ko pour jàng ko wala maslawhi alquran ku jàpp li tam warul laal alaway alquran al azim alquran bu màgg bi alawa ji waroo ko laal ala xayril wudu'i ci koo xam ne kii jàppul illa li mutaallimin fii lu dul nag koo xam ne kii ah daf ciy jàng aw muallimin wala jàngalekat boo xam ne yu saxiixuhu dafa ñëw pour corriger ko kon ñooña may nañ la ko kon ñu gis diine islam ni mu fonkee jàng ak jàngale kon bari na loo xam ne mayuñu la ko yow mi jàngul ki nga xam ne dafay jàng moom ala kulli xaal may nañ ko ko nee na wa sabiyu xale bu tuuti nag fii maskil quran ci laal alquran kal kabiri moog maga ci yem képp wal ismu wante bakkaar bi ala munawilihi ka ko ko jox ko ko am bakkaar wa man salla képp koo xam ne nag da ngaa julli bi xëyri wuduin te jàppaloo amidan te tayyu ko nee na fa huwa kaafirun nee na kooku yéefér nga képp ku julli jàppaloo te tayyu ko nee na kooku yéefér nga moo tax mu ne wal ayaasu billahi yal na lu yal nañu yàlla musal ci loolu yal na ci yal nañu ci yàlla musal kon loolu ab bunt la faslun li itam li itam benn bunt la kon loolu mooy li nga xam ne balaa ñuy dugg ci beneen bunt bi incha allah te mooy li nga xam ne ci wàllu sangu la xanaa dañuy yem foofu ñi ñaareelu kaset bi incha allah ñu dugg ci li nga xam ne moo nekk sangu ak li ciy war alhamdulilahi rabbil alamin